asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info tey ñi ngi fi nga xamante ne mooy Parcelles Assainies ñëw seeti écrit Parcelles mboolo bu nee Parcelles mboolo xel yi jëm ci le grand champion Moussa mais également ku ci mel ni Franc nga xamante ne maa ngi koy duppee le lutteur à puissance intenable bu ñu weesoo Franc ñu am xale yi nga xamante ne mi ngi ku ci mel ni far bu jaar aussi ñi ngi fii ci écrit Parcelles mboolo moom itam war na bëre ci kanam tuuti am na waxtaan a séq ak moom terminé waaw père bu loolu weesoo ñu daal di tàbbi ci combat bi waral coow li mun naa ni ñëw na ba pare parce que euh, dimanche incha allah mhm. instant yi comme li ma wax rek mënatuñ cee épilogué lu bëri mais dañ lay soxla sa analyse rek ak lan nga ñu mën a wax ci combat bi. dëgg la euh, combat Modou Lo Balla boo waxee nit ñi lay yaakaar da nga far mais xam nga analyser dara léeg nga analyser ko la nga analyser tombé à pic léeg nga analyser loo xam ne la ngay analyser du bokk na combat mais dañuy wax rek liñ ci xam Balla Gaye boo xoolee étape bi mu nekkoon nga xool ko contre euh, Yékini xool ko contre Tapha xool ko contre Eumeu Sène xool ko contre Gris Bordeaux nga xam ne poids bi mu yoroon ak bi mu bëree Gris Bordeaux 30 minutes yëm bëree Gris Bordeaux 30 minutes yu intense nag laa la wax. parce que bu may wax damay wax ci làmb waaw du dama far fii wala dama far fii man géejawaay la dëkk donc lu may wax damay wax lu ma xam. donc nag 30 minutes yooyu mu am ak Gris Bordeaux waxuma dara mu demaat INSEP Super liggéey fa loo xam ne liggéey bu méttee métti la. boo boo xoolee Balla Gaye gis ko muy sañe muscle ya nga xamoon muscle am ya mu yoroon contre Modou Lo muy bëree bëree bu njëkk muscle yooyu laa gis ci Balla muy combat boo xam ne nag du yomb ci moom waaw du yomb ci Balla Gaye loolu laa mën a xam loolu laa mën a wax ci Balla Gaye concernant Modou Modou dafa nek nit ko xam manam nit ko xam il est toujours prêt parce que lutax bu combat mi jeexee bu wat di entraîner xam na xalé ndaw yi ci souf ñom ñep ñi ngi rêvé bëré ak Modou nga bu baax li ma la boo di prêt chaque instant mom bu amé combat dana entraîner nee naa la Modou Lo entraîné na ba entraîné jour tabaski loolu mbeur mu koy def Sénégal bariwul. maa ko fekkee ndax maa ak moom a doon ànd man ak moom ak garga ñi ngi doon préparé combat Khadim Gadiaga jour tabaski ki la wax entraîné na bay entraîné jour tabaski kon xam nga ne kooku chaque combat ak combat bi nu mu ñëwee moom moom il est toujours prêt ci boxe ci mental récupération bu baax ba pare màggagul li mu war a màgg tegul ci yaram bi yenn coono yi yi nga xam ne mbër yi moom lañ teg seen bopp manam jël certains produits yo xamné mo do doon jël lool fekk ci Modou Modou naturellement il est prêt parce que xalé yi ci gannaawum mbër yi ci gannaawum di rêver di bëreeg mom chaque jour nga dégg ñu leen di cité ay Ama balde dafa bëgg a bëreeg Lo diw dafa bëgg a li ñom ñep ñom ñoom Boy Niang keneen ak keneen ñom ñep ñi ngi rêver bëreeg Modou loolu tax Modou mi ngi leen di sóor ba nga xamné entraînement endurance ba muy teg boppam coono ba muy teg boppam il est toujours prêt franchement loolu da la xam wa en tant que technicien yow nga mun nga wax ñu rek ku ci nekk nan nga war a bëree pour mun a génn ci combat bi non xam nga combat bu njëkk bi nee naa eh, eh, waxoon naa ko temps pass ci benn site internet nee naa leen combat mbër bu ñu ko pare xam nga fan yëpp gisoo ci kenn ko munoo dem benn séance d' entraînement bañ ko ba nga gis seen corporance gis seen yaram gis seen forme gis seen état mais dama ne la cinq cinq minutes yi njëkk yi nga xam ne dañuy dox daje mu ne runkum ñu dox daje première souffle bi génn rafaal yi génn mbàccum gerte mi xob yi dem ne kemb gi wàcc waaye sa waay ku ci génn ci doog a mën a diriger combat bi mais bu cinq minutes yooyu weesu ku ci génn ci cinq minutes yooyu doo diriger combat bi kooku man maa la ko wax. mais cinq minutes yooyu jàpp nga ni làmb ji war na ci mën a jeex wala waru cee mën a jeex. saa dépend ni combat bi demee xam nga Balla dafa am manin Balla léeg-léeg day mépp xool li adversaire bi def ba xam adversaire bi dina réagir wala du réagir. léeg-léeg day bëri noonu day xàcc coup mépp pour xool adversaire ba xam nu muy réagir bu adversaire bi doxee dalanteeg moom mu daw fiile ko jàll yargadu adversaire bi dellu siwaat mu yargalulaat pour mën a liggéey moom loolooy fooram Modou yàkkamtiwul lu muy bëri ndax doo jóge ci combat ñu naan la kii dalaa daan 21 secondes te combat bii di ñëw muy sa combat revanche te téyoo ci combat bi mais combat bi li nit ñëpp ñaawe njort li nit ñëpp ñaawe njort te xamuñu ko mooy combat bii tey du combat bo xamné c'est un combat capital y compris pour Modou y compris pour Balla ndax Modou aussi de un Balla daanoon de deux liñ ci xalat moy tay combat bi tay bu ci Balla Gaye lan moy suspense bi duñ ma tontu légui nak bu Balla daanoo Modou lan moy problème bi yokkute gi fofu la nek ci ñom ñaar parce que Balla aussi amna touti retard ndax gàddaay gi gàddaayoon combat bi psychologiquement ku ci gën a pare mentalement ku ci gën a pare entraînement bu sérieux ku ko ci gën a def combat bi moom dëgg-dëgg doo ko ñàkk. mais nga yaakaar bu ñu wëree ci kaw bëree maanaam ñu bëree action ci kaw action kan la gën a avantage. non xam nga Balla daa man di bëre Modou Lo nekk ndaanaanu bëre muy ñaar ñi ñu boole ñaar ñu bëggante namante. te ñaan ñi kenn ku ne da nga namon sa morom parce que demone nañ ba ci yag temps yi pass sax ba la woon dootuma ak modou ndax ni la démé na la démé mais combat même mën nga wax lu la neex ci lamb mais xaaliss kenn du la ko fay nga nan dédé xaaliss ci bobu la mbeur bëgg xaaliss ci bobu mbeur du ko bëgg ci xol donc amna combat yo xamne bu taxawé nga nekkon ci ben tolof tolof bu ndaw fi doole bal japp na yaakar na la japp na day ñew rek daan mo dem yoon mais combat bi du yombé non mo tamit yaakar na ne combat bi mom mo ci war am dam moo tax ma ne la cinq minutes di njëkk yi bu ne rukkum daje rafaal yi commencé ñëw kemb gi daw gerte xott yi naaw sa waay combat bu dina métti ku ci génn di nga diriger combat bi waaw loolu moom wér na moom. waaw ñu gis ne aussi ci préparation Modou Lo euh, ay module d' entraînement lu ci bëri de dafa misé wu ci wàllu boxe loolu di ñu jox ni rek dafa mel ni stratégie bi mu war a andi dimanche incha allah dafa dafa lalu ci xeex xeex la xeex bi moo moo moo moo war a doon kele kele kele làmb ci préparation Balla ak préparation Modou Lo ñoom ñaar ñëpp laa wax parce ci combat boobu la ñuy wax préparation Balla Gaye ni Balla bay préparé combat bi ak ni Modou préparé combat bi jour ji nga koy xam ci jour ji bi ngay xam loolu maanaam ñoom ñëpp li ñuy def actuellement ñu ngi koy nëbb kenn ku ne yaa ngi yor sa secret bopp ak ni nga xam ne noonu lay combat bi jeexee yaa ngi koy préparé mais doo ko divulguer carrément wan ko nit ñi mu ne fang Balla dina jéem a xeex nii wan na ko damay boxe maa ngi boxe maa ngi ci ay salle de musculation yu boxe combat bi mën naa bañ a jeexee sax ci boxe wala ay xeex combat bi bëree moo koy jeexal te combat bi cinq minutes yi njëkk yi bu ñu ne runkum wala deux minutes njëkk yi ñu ne runkum ba rafaal yi commencé dàq bañ génn ba kenn ku ne sa premier souffle gémm di nga xam ki dirigé combat bi loolu koy maa ko waaw loolu mooy combat bi combat bi moom il faut nga ñaar ñu ne runkum kenn ku ne peese sa doole. ipir ki commencé dàq nga xool ku ci gën a pare physiquement bu ñu génnaatee balaa song maa ñëwaat kenn ku ne danga natt sa bopp xam ne kii indi na doole léegi nag foofu la combat bi nekk caabi combat bi foofu la nekk ci runkum bi kuu yi dàq gerte ginnaaw kemb gi di suuf maa la ko wax maa la ko wax moom loolu daal mooy clé combat bi mais clé moom ku la wax naan la parce que Balla la mu pare secrètement mi ngi denc ci ruq moo tamit physiquement il est parce que nee naa la jël na fii samay booy yóbbu leen Espagne jël dóor dóoraat yóbbu leen Espagne donc préparation bi moo di préparé contact ba fa am physiquement moo gën a baax mais du ma ne diw mii moo gën a pare diw te gisaguma leen ñu summeeku man daal bu ma demee stade ba gis leen ñu summeeku cinq minutes yi jëkk yi ñu ne runkum daje. Hmm? mbàccum gerte mi commencé. sa waay combat boobu du yomb de ah, loolu daal laa ci am lu ma ci wax. kon suñ sukkandikoo ci say kàddu daal mën nañ jàpp ni combat bi cinquante cinquante la ku nekk war nga mën a parce que boo ne diw mooy favori. dañ naan da ngaa far géejawaay ndax géejawaay nga dëkk nga ne diw mooy daan ñu daan diw ñu ne ah diw de moo ko fi xool mais dama ne la bi deux minutes bu doon une minute sax la ñuy dox daje ñu ne runkum daje ipir kii lii commencé daq ki ci gën a pare physiquement mooy diriger combat bi laa la wax déggoo de damaa bëgg nga dégg baax li ma lay wax te li ma lay wax dam xam laa lay wax nii bu deen cinq minutes ñu jàppante cinq minutes buuxante dóorante épit ki li dàq tif tëf ci ñëw ba nga xam ne gars yi génnaat nañ ba nooy premier suuf bi commencé génn ah bu ñu dajawaatee kenn ku ne da nga xam li sa morom indi ci doole mais ci kaw loolu ki gën a pare physiquement tamit mooy gën a am chance pour daan parce que adversaire bu yàggee mun na bàyyee ko moom mu liggéey ci kawam ba am li mu bëgg. waaw looloo tax ma ne la ki gën a pare premier suuful nit ku gën njëkk a sa premier suuful njëkk a génn ngeen dox a dàq ku ci gën a pare physiquement gën teg combat bi sa waay yaay diriger kombaa bi laa la bi combat moom yaa koy diri waaw ah. te kombaa bi du combat bu yomb ku ci yaakaar danga nga yomb wala say supporter yaakaar na la day dem daan Modou rek dem ci bi këram tëdd ma yaakaar naa da nga sa bopp waaw ah, li ma lay xamal daal mooy combat bi daal du yomb waaw ah. loolu moom wér na ma moom man daal du combat bu yomb ci man gisuma tamit mu yomb ndax nag du nit du préparé ci ruqam yow tamit nga dem préparé INSEP su pare fay fa xaalis bi waxtaan kii yóbbaale lu ma quelques personnes dem Espagne préparé wu préparé wu ba ñëw sentir ci yaramam doole sentir yaramam bëre te Modou ku ko xam-xam ne daa man di bëri ku ko xam-xam ne ku mën a bëri la ku ko xam-xam ne ku mën bés la xam-xam ne ragalul bis bi mu jëm parce que boo xoolee ni muy ñemee la ak ni muy waaxoo Balla nga xam ne ñeme na ko léegi nag ndëgg sërëx ga ca biiru combat ba ku cay sërëx laa xamul kooku dama la koy laaj yow waaye man xaw ma ko <laughs> ndëgg sërëx ga daal xaw ma ku koy dëgg waaye sa morom fekk na parne na physiquement kooku moom oh, je dis franchement que ki nga xamne moy mooy moy diriger combat bi kooku mom dalay lay moy gëna paré ko ci combat bobu du yom a ah, père kon ñu bàyyi nga nga nuyoo rek dal di tagatu ak ben message ngay lancé surtout dal di sensibiliser supporters yi euh, à propos de la non violence parce que bis bi doon na bis bo am tane ne mun naa ni euh, am ampleur te coow bari na trop. bon supporter xam nga nee la mbeur mi bëri du yak làmb te bo xolé supporter chaque fois indiscipline bi ci supporters yi lay nekk wala ci accompagnant ak accompagnant mbër yi accompagnant mbër yi boo déggee saaga ñoom ñooy saaga te kenn ku ne xam nga saaga dafa rafetul déjà te saaga ñu ngay saaga ba télé tiim la ay ay télé tiim la ngay saaga ba ñu xam ne yow mi yaay saaga dafa rafetul ci accompagner nit te dafa am ay millions yoo xam ne saaga xaju fa benn boo xoolee làmb si accompagnant yàq làmb ji parce que mbër mi bëri talul yàq làmb mbër muy bëre talul naan ay naa saagante fi mbër mu muy jëflanteel mbër moo moo ko ñor te ci digg géew ba la accompagné yëpp dafa am fu ñu yem donc nañ am discipline respecté aussi ñeneen ñi nga xam dañoo dagg seen xaalis seen loolu cent nga dagg ko ñoom ñu nekk ci biir salteel combat bi te duñ ca dara bëgg visibilité donc bëgg ku leen gis maa nekk ci kanamu mbër mi maa ànd ak mbër mi maay def nangam te benn njëriñ amuñu ko mille francs sax duñ ko jox mbër mi mais naa nekk ci kanamam rek daw ñu xam ne man mii maa ànd ak Modou Lo wala yooyu loolu amul sens wala man mii maa ànd ak Balla Gaye amul sens gis nga discipline lum la mayul ci àdduna dara du la ko may respect bi nga respecté say waajur noonu nga war a respecté ñi ci làmb di ñëpp éducation de base doo dégg mukk écrit parce seen mbooloo ñu ne dem nañ benn làmb ba yàqu ko wala dem nañ benn làmb ba dafa xeex wala dem nañ benn làmb dafa war doo ko dégg te ay nitu làmb laa tii di wax man mii wax tamit xam nañu donc respect da koy commencé ci biir écrit bi ña ngay convoqué aussi booy convoqué wax leen ne leen lii moytu leen ko lii moytu leen moytu leen provocation mbër yële moytu leen def nii moytu leen def nii su ko defee ëllëg dañ lay naw parce que des fois CNG day toog ba càgg récompense ay nit ci meilleur écrit bu gën a discipliné meilleur écrit nangam parce que récompense yooyu aussi day wan ne la yow mii écrit bi nga nekk c'est un c'est un boo xam ne il est respecté jee ñu ñor man lépp loo xam ne day yàq day yàq làmb bokkuma ci fi mu toll làmb ji laa naa la xamal leen Alaaji Ngagne Diagne mooy Messi Bécaye Mbaye mooy Ronaldo loolu daal laa xam. Malick Thiandoum. Malick moom c'est le <laughs> waaw léegi nag ñu ngi gërëm na gars ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm sama xarit Ousmane kamara moom moo yore waa Dóor Dóoraat depuis Italie waaw di gërëm suma famille sumay frère Laay Diop depuis Toulon laay sax war nga ko xam ndax xam nga ku ku nekkoon ay géejawaay xam jàppoo sa am war a xam Laay Diop. gërëm samay cousin yi fa nekk ñoom xaddam samay tonton di gërëm waa Italie Ndiaga xam nga Malick xam nga di gërëm suma famille xam nga suma grand frère Goro grand Jibi xam nga di gërëm waa Guédiawaye waa Marsam di gërëm Jaaji xam nga waa waa waa Daara Escouteur yi maa ngi leen di gërëm Ablaye suma rakk feeraay xam nga maa ngi daal di gërëm waa parcelle ñëpp di gërëm ba unité 1 ba unité 26. xam leen ne la am nañ bis ñoom bis bi nañ ko teg ci cadre sport te làmb ji yàgg-yàgg ci sport lay mujjee mais indiscipline ku ku mu ku mu yóbbu ci làmb ba nga toog sa ndax mbër mi sant la ko ñoo ngi leen di sant bu baax aussi yéen waa Géejawaay info di sant Alaaji Bakaay di sant Thiandoum di sant ñëpp di sant di la sant aussi ci teewaay bi xam nga ak ñëw gi ngeen fi ñëw xam nga jël si xale yi ci équipe aussi kontaan nañ ko rafet nañ ko équipe par seen mbooloo yëpp par seen ngeer Moussa Pël organe ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi ngeen fi ñëwee ak teew gi ngeen fi teewee kontaan nañ ci lool xam naa bu beneen yoonee ba mbëri njibbi ñoom Yanda Njibisi ñoom dem ba Diallo dañoo dem Allemagne pour préparer seen combat pour deux mois Franc mi ngi jàppale ji Modou Lo ñoom ëbbali ñëpp dañuy xaw a jàpp xam nga te xam nga ku nekk à la veille de de bis bi 48 heures ci bis bi donc nag dañ lay soxla lool pour yenn détails yeeg ak àndal ak kii demal wuti lii noonu loolu tax tey écrit bi sax ñi fi war a teew teewuñu fi waaye bu fi samp yooyu yëpp teewoon di nga xam écrit parcelle mbooloo lu mu doon ñoo ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp waaw bàyyiwuñ kenn daal képp ku ñu limul dañ laa fàtte waaw képp kuñ waxul aussi eh, ci yóbbantewul ay nuyoo aussi eh, xamal na ne ñoo ñoo ñoo ñoo suñu xel mi ngi ci moom ñu ngi gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp di gërëm waa Guédiawaye Gerem. jërëjëf waaw coach ñu lay sant di la gërëm waaw mbokk internet yi mu nekkoon waxtaan bi ñu amoon ak euh, le coach Mame Less yaakaar naa mu doon waxtaan bu am solo parce que ñëw na ci historique bi écrit bi buñ duloo mu doon waxtaan boo xamante ne am na solo trop bëri na loo xamante ne tey point yi na ko di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous prochainement di gërëm aussi suñu technicien l'incontournable Bekay